Ah, région de Kaolack ci arène Manga juuf bat moo nekk noonu ah waaw aca Papo Ngane Sossokh Moustapha Ndoubab mooy marqué waaw waaw ba dañu noonu Sossokh ne Papo Ngane ndig mama <laughs> demal demal waaw demal demal ndig demal ndig ñëwal ndig ñëwal ndig ñëwal di ko markaat waaw di ngay dem de aca aca demal aca waay demal yow demal maa dina gaaw waay ndig daaru na ndig buum na maa di waaw maa di yaa jóg ñaar rek ñaar rek waaw waaw. moo nekk noonu. Aja ndig maama waaw gardien Pape bu ñu jël laa waaw Baba Ngaan. cent kilos région de Kaolack. Madi Thior 66. building Caxaaw daf leen gunge ci entraînement bi aca Badara 86 Lig Mama 76 aja, Moustapha Ndoubab paña ndig day waaj rek day en même temps dafa woor de waaw ndig maama yaa bëgg dërëm kenn du la yërëm Les marchés te maade gi noonu 66 kilos région de Kaolack Mady Thior Mady aca aha Mady Mady doole Mady doxal doxal kaw ñaa ipa di gaag lay escanté de abadara neen baal gan gi دمل دمل دمل ها دمل دمل سجل سجل سجل دمل دمل دمل دمل دمل دمل دمل هو دمل دمل اي باتكتم دمل دمل دمل دمل هو دمل دمل فتاوى دمل دمل دمل دمل دمل لا الباب دمل لا الباب لا الباب لا الباب دمل دمل دمل دمل واو كل انتنسيتي Asal bro. Jangan, jangan, jangan. Bisa bantu bab. Wah, bro. Jangan. Jangan. Jangan. Mari sini. Jangan, boy. Jangan. Jangan. Jangan. 100 kilo région de Kaolack. Papa nga am soosoo ñëwal. moi. ñëwal. demal demal ñëwal demal ñëwal. cắt, bắt Dewan, tekan tuwi. Cut. Ah, wag doon yung wait, wait, wait, wait. Sapa sa sapa sa loy, sapa sa loy, buli dito sa sapa loy. Dewan, dewan, dewan, sapa loy. Balik. Wow. Dewan, mari. Buli kibulan, o kibulan, dewan. Dewan. Deux, đưa. Ma まで30 kilo. d o m a Dora. Trois, demande. r n d u Demande. Quatre, demande, demande. demone cinq demone ah demone six demone ah s e t demone allez huit demone ah demone d e o n

sama alhamdulilah tey ñoo ngi fii arène Manga Diouf ah ñëw di regional seen entraînement yéen équipe euh, régionale bu Kaolack nan ngeen di waajee drapeau chef de l'état bi bi war am ren Saint-Louis waaw général mhm. ñu ngi lay sant di la gërëm di sant waa ñëpp sant Sénégal mhm. mhm. bo ñu ngi koy waajal bu baax baax parce que ñu ngi suñu entraînement ñu ngi vraiment gis nga entraînement ni mu demee kon euh, ñu ngi ci ñu ngi koy waajal fekk naa leen fekk naa leen ngeen entraîné bu métti yàqale ñu ngi préparé loolu moo ñu war li ñu war andrene mu taxaw loolu moo ñu war waye nak maa ngi sant ñëpp ña waa Kaolack yëpp di sante yow di leggal bu baax baax est-ce que équipe yop ñew nañ équipe yop teew amuñ ko manqué am am ku manqué moy mhm. euh, rajaxe rajaxe tay lay ñew ah tay la wara ñew tay la wara ñew tay la wara ñew ba fu mu demone waaye tay lay ñew quoi d'accord tay lay ñew mom rek mo manqué mom mhm. kese mo manqué kon kon fu melni yeen ak leen fi tee en regroupement ba ba la douze keroog ba la 11 ngeen soga départ 11 la ñu war a xëy bu sobé la dem dem dar inshallah inshallah ban appel ngay lancé waa Kaolack autorité yaa village village mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. di dem dem ci dem bi indi ko mu nekk suñu feet bu lool loolu lañ loolu lay ñaan. Mhm. ñu wax Kaolack ne. amul autorité. amul góor amul jigéen amul ndaw ñëpp nañ ciy jàpp. Mhm. xam ne équipe bi seen équipe la. seen équipe la bu équipe aj ma ju équipe bu euh, mhm. dafa nekk équipe régionale la. régionale la mooy Kaolack. boo nag waa Kaolack yëpp suñu Saalum yëpp nañ ciy jàpp. fu doomi suñu Saalum rek. nañ ciy jàpp pour ñu a am daal ñaan soxla nañu ñaan. soxla nañu tam moyen. parce que surtout équipe. li ko yor nekkul yomb. parce que région yi la. mooy quatre régions. war a tase bu suñu région ñu ñaan suñu région. Mm-hmm. nañu jàppale jàppale seen équipe. xam ne seen équipe mooy dem. Mm-hmm. jàppale par moyen. ak ñi ak ñaan ak lépp daal lañu ñaan yàlla njëpp lañu loolu daal la ñu xaar ci waa Kaolack surtout nag autorité yoo xam ne yàlla moo leen fal nekk ay doomi Sine Saloum ñoo ñu yi jàppale seen bopp jàppale seen équipe parce que région yëpp ñu ngi jàppale seen seen seen yi kon équipe équipe bi mu nekk surtout nag mu nekk drapeau chef de l'État xam ne ñëpp ñoo fay tase mhm. tax la war a gis ginnaaw yëpp dañ ci war a jàpp pour ñu am moyen boo xam ne koy dem parce que financement la mhm. daal laay laay laay laa am na solo baba daal loolu seetaan baax na am na solo ok jërëjëf